buñ ñu leen joxee mandat. dare euh, dare mooy. nañ ko jàpp ko fekk nañu takk ko jàpp waaw donc loolu mooy première possibilité bi juge d'instruction bi mën na ko woowal boppam directement. Uh-huh. tout comme aussi juge bi mën na yóbbuwaat dossier bi ci ña defoon enquête ba section recherche loolu mooy délégation judiciaire. mën na ko delloowaat dossier bi ne leen convoqué leen moo ko ngeen entendre ma ko sur PV ngeen indilaat ma kii bi su ko defee section de recherche kii waat donc ñaar yooyu yëpp bu ko ci neex lay def kon section de recherche ba léegi mën na jàpp ne génn même si dossier bi nekk ci ñoom génn guñ parce que juge d'instruction am na possibilité ne leen nañ déglu Ousmane Sonko effectivement lu mën a nekk la alors dinaa ñëwaat léegi euh, Pape mais euh, la ko tuddee te loolu mooy <laughs> euh, li gën am solo suñu waxtaan tey mhm. mais Issa dafa mel ne li ci mujje que finalement il a fois doo xam euh, lan mooy lan mais dafa mel ne ñoom Dame Mbodj ak euh, Karim Xurum Xaq échappé nañ au mandat de dépôt benn ci mandat yi kii doon tudd sax ndax nañ leen euh, mhm. comme ni ko enseignant yi doon sàkkoo gis nañ ne sax tey daanaka pression bi bari woon na ci trop ndax ñu ci bëree bëri décrété woon nañu ne duñ faste xaaj ak morom te gis nañ ko ci yenn ci ay l'école yoo xam ne jàngalewuñu ñoom ñi nga xam ne ñoo di jàngalekat yi mu di Dame Mbodj kon bàyyi ko mhm. njiital kisèms authentique ak ki nga xam ne moo di Abdou Karim Gueye mujjee teg moo leen boole. ak fukki nit ak juróom-ñett ñoo xam ne itam euh, bokkaale nañ ci ñoom it daan leen di bàyyi ki di Clédor Sène ak Assane Diouf fekki nañu Guy Marius Sagna ci kaso gi mu di kon. Euh, donc Clédor ak Assane Diouf tey la leen a mandat de dépôt. voilà donc euh, def nañu mandat de dépôt jigéen ñi des nag ñoom it ñooy xaar muy may Maimouna Dièye ak jigéen ñi nga xam ne ñoo bokkee ca Pastef les Patriotes ñu jàppoon leen mhm. ni ki aljuma bi ñu weesu ca wetu kër Ousmane Sonko ginnaaw bu ñu fa doon amal toogaayu ñaxtu ngir sàkku ñu bàyyi seen ay naataango yi nga xam ne ñoom lañ jàpp ci mbir rajo bi yàggul moom lañ daraloon ci rajo bi c'est la même donc moom mooy la présidente des femmes de Pastef mais njiital jigéeni Pastef noonu lañ koy waxee ñoom parce que nee wolof bi moo leen euh, gënal donc moom lañ jàpp ak yeneen jigéen ñu nga xam ne mhm. ñoom moom ñoo doon manifester mais jàpp gi nag xëy na leneen lu ci yéeme sax mooy ñun loo xam ne quand même nañ koog ñoom mhm. euh, parce que biñu leen jàppee boo xoolee def na yow leen voilà donc oto bi dafa xawoon ndaw mhm. mais biñ leen jàppee kenn lañ njëkk a ci oto bi pamti pamtee ko mais ni ñu ko jàppee déjà xaw nañ ko brutaliser daanaka parce que ni ñu ko doon meebee xaw na ñaaw mais ñi des ci lañ ne duñ fa des mmh. ñoom ñoo jàpp itam lu jar a soulever la parce que xam naa ne ñu fa teewoon comprendre ñu ko mais ñi ci des ñoom ñoo ne duñu fa des du ñu jàpp seen benn moroomu jigéen ñu di ko fa bàyyi ci lañ dem jëliwaat may mun a jàpp ñu ko woon may mun a jàppuñu ko woon moom mais là li ñu li ñu gis li Issa Tine léegi mooy dañu jàpp ñenn ci ñoom ñoom soxna yooyu yëpp ñu ànd ne